waa je pense que ñun ñëpp suivre nañu actualité boo xam ne nii moom moo am Sénégal mm-hmm. euh, plus précisément département Guédiawaye euh, bu nu waxee Guédiawaye wax effectivement lu amoon au niveau de la mairie de la ville mm-hmm. bu ñuy installé Ahmed Aïdara mm-hmm. mu nekk loo xam ne nii vraiment lu ñëpp di ñaawlu la parce que quand même comme que dem nañu élection ci jàmm noonu lañ ko mën a waxee Euh, yàlla def na tey Ahmed Aïdara moom la ñu fal mairie de la ville euh, bu Guédiawaye donc euh, je pense que war nañu rafetal affaire yi mais on a constaté malheureusement. mu amoon ay tiraillement de gauche à droite loo xam ne nii mun na ñàkk ba tax na je pense que lii tax na ñu bëri en cas ci askan wi amuñu envie def def politique. Mm. politique dañ ko jàppee comme benn activité boo xam ne dafa dafa dafa salté. Mm. alors que dafa waroon nekk benn activité boo xam ne nii activité bu noble la. Mm-hmm. normalement da ngaa war a dem liggéey boo wàccee nga nekk si parce que politique au fet jaamu askan wi la. Mm-hmm. mais j'ai l'impression dafa am ñoo xam ne euh, dañ ko def benn genre métier. Mm. dañu ko def mu jaral leen lu nekk. Hmm. boo xoolee ñooñu souvent quand il y a problème si ñooñu lay jógee. màgget hmm. mais est-ce que tey euh, vraiment jotul ñu xoolaat vraiment ñuy defee politique. parce que vraiment c'est c'est c'est c'est malheureux. Hmm. et ce qui est pathétique dans les autres mairies ñoom def na installé na seen maire sans mu am benn problème mais pour lax bu pour lan bu ñu waxee violence rek ñu tudd Guédiawaye est-ce que loolu vraiment waruñu rus quand même tey aujourd'hui quand on parle de violence, automatiquement les gens pensent à Guédiawaye. Et pourtant, quelqu'un comme M. Euh, Alun il a un bilan positif. Hmm. boo xam ne nii wax dëgg fa yàlla képp koo xam ne dugg nga Guédiawaye di nga xam ne changement am na fa. et man ma jàppoon ne tey bu lu ñuy wax élection locale je pense que su nekkee tey yàlla def na Ahmed Aïdara moo gagné man damaa jàpp ne conseil yooyu nga xam ne tey ñoom ñooy xiiro di ŋaayoo di xeex ba di sànnante ay butéel. alors que ñoom ñooñu war a gérer conseil bi est-ce que ra ça ne sera pas déjà un, un mm. et je pense que ça sera un obstacle malheureusement pour le département de de de de de, de mm. mais dina nekk benn exemple boo xam ne en tout cas nekkul loo xam ne dinañ koy sawar di di di di di wone parce que moi au fait je dis que euh, c'est une grosse déception quoi. Mm. waa Yadwan comme comme tu l'as dit c'est une grosse déception d'abord nag nañ nuyu téléspectateurs yi <laughs> waa Pexxe TV ñu ngi leen di ziar di euh, leen waxaat ñoo nekkaat ni ak yéen ci plateau bi e en gros comme ni mu ko waxee rek ñu ngi bëgg a wax ci euh, li nga xam ne mooy passation de service u ay Aïdara bi li fa xew c'est décevant comme tu l'as dit c'est vraiment décevant xaarewuñu ko woon noonu et malheureusement c'est encore waaye ci ñun lañ ci déggaat ci ay coowum politique comme ni nga ko waxee politique dafa nekk loo xamante ne pourtant c'est chose de très noble et malheureusement on l'a diabolisé ici au Sénégal dañ naan souvent buñ ne la politicien nga rek am nañ fu ñu la dëkkal malheureusement alors que pourtant politique c'est quelque chose boo xamante ne ni maanaam définition politique sax yàddu woon dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa noble ah c'est une c'est un art en fait loo xamante ne ni da ngay attirer da ngay les gens à ce que ñu rejoindre ton idée parce que bu ñuy seetlu sax yonent bi sallallahu alayhi moom da daan politique en gros ah. parce que bu demee tey jii bay euh, ba convaincre ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy euh, kii nu nu koy waxee monde musulman à ce que ñu ñëw rejoindre l'islam donc c'est une mode de politique mais très saine et avec des avec des principes et des valeurs ya nga xamante ne ni tey ñun on incarne euh, aujourd'hui on est des musulmans on est chrétiens ñu ñëpp gëm nañ yàlla et je pense que dañ ko war a def de façon très saine et donc si je reviens sur euh, li nga xamante ne nii mooy li xew euh, fële euh, ca mairie ba c'est mhm. décevant wan encore une fois parce que yaakaaruñ ci woon lii mais malheureusement c'est ce qui s'est passé et mën nañu wax en gros rek li fa xew parce que euh, comme ni nga ko waxee nee nga conseils yi conseils yi certes y'a y avait les conseils et c'était en gros une manque d'organisation mais aussi boo seetloo Yadouane li indi problème bi li nga xam ne moo ci gën a fees mooy Ahmed Aïdara d'après nos investigations Ahmed Aïdara si jëmi boppam moom dañoo doon def en plein poli en plein vote pour euh, nommer ki nga xamante ne mooy adjoint maire mais moom au final ci digg vote bi la annulé votam parce que sax am na benn image buy buy flotté ñuy wax naan Ahmed Aïdara micro da koo trahir parce que mi ngi wax ci suuf naan nañu yàq vote bi nañu yàq vote bi parce que gis na ne affaire bi arrangé ko mais ci njëlbeen ba li ci gën am solo mooy ki nga xamante ne moo nekkoon seen candidat muy euh, Mor Diaw je pense moom nga xam ne waa yeewu askan bi waaw yeewu askan bi moom lañ tànnoon comme candidat euh, ñoom d'accord ñu woon ci Mor Diaw déjà pré au préalable looloo nekkoon problème bi bu njëkk bi parce que ñoom profitoo ñu ci candidat bi ñu tànn et au bañ bañ demee bañ demee ba nangu ni dinañ voté malgré tout mais ñu gis ni tour tour kii am na retournement peut-être loo xamante ne ce n'est pas à leur faveur ñu ne nañ saboté mbir mi. mu mu mais est est-ce que nekkul présence au fait euh, Aliou Sall moo doon déranger. parce que sa sa présence aussi peut euh, influencer quand même même bu fekkee ne présence Aliou Sall euh, Yadou na leen loo xam ne un conseil comme les autres. donc c' est est-ce que un conseil Yadou Wane hmm. on a on a qu'à vérifier Aliou un conseil direct. moom mooy ki nga xam ne hmm. donc c' normal que mu teewee fa. je pense que ni sax su fekkee dañuy wax ci côté conseil pour man daal question que ni

Euh, est-ce que loolu vraiment war na tey parce que xam xam nga man man loolu lan la may jox mm-hmm. ça veut dire que aujourd'hui mm-hmm. y a des gens yoo xam ne mm-hmm. malheureusement genre voyez-moi la quoi ça veut dire que dafa nekk ay bado yoo xam ne ñoom jàpp na lépp si lépp dañ si wax politique politicienne mais pas politique en tant que politique mais malheureusement dafa nekk ay dóorkatu mata yoo xam ne nii exact yaakaar jàpp naa ne lépp lu yàqu rek ñoo ñoo ko yàq man foofu moom vraiment j'aurais préféré police vraiment mu jël ay mesures am jël ay matuwaayam. Mhm. képp koo xam ne doo conseiller. Mhm. vraiment nga war a nga war a nga war a nga war a jóge foofu mais aussi lu ma gën a jaaxal mooy lan. Mhm. Euh, avant ñuy joxe résultat yi. Aliou Sall a appelé euh, Ahmed Aïdara mu félicité ko. loolu yow je pense que ñun ñëpp on avait apprécié ça mu nekk benn acte bu noble comprendre nga euh, pense que aussi récemment quelqu'un comme Ahmed Aïdara génn mu félicité effectivement Alioune Sall ba baal ko ak bu mu baalee ak Alioune Sall dafa étonné ñu bëri hmm. parce que moom moo fi nekkoon di wax euh, au début au début di ko sànni xeer ainsi de suite mais su ñëwee dafa ne su ñëwee par exemple ba baalu ko ak vraiment vraiment raxas ko ba mu set mm-hmm. mais dama naan mais au fait y a problème c'est-à-dire ces gens la qui se battent pour Alioune Sall wala ces gens-là qui se battent pour tout simplement Euh, Ahmed Aïdara. Mhm. mais ñooñu dafa mel ni ne vraiment seen bopp yi amul ndox. Mm, parce que xam nga politiciens yi dafa ñu dugal si benn guerre boo xam ne. Mm. comme nu ma waxoon au début rek gis nga élection campagne bu muy ubbi. Mm. def nañ fi émission ma ne. politiciens yi bu mu jaral kenn ñuy xeex parce que ñun ñoo bokk golf ñoo bokk géejawaay ñoo bokk Sénégal. koo fi dóor ba mu gaañu après yow sa mbokk moo koy faj. exactement est-ce que ñu dañoo war a suivre ces gens là. mais en fait si seen si seen jeu boo xam ne nekkul jeu bu rafet quand même on peut pas empêcher tout le temps euh, nit am ay nit yoo xam ne dañoo jël choisir topp politiciens yi on peut pas les empêcher mais ce qui est sûr mooy que ni am na ñoo xamante ne ñi ñu ngi ci biir kër yi et je pense que ñooñu sax souvent ñooy def élection ñooy vote ñooy ki nga xam ne ñoom ñooy tànn ki nga xam ne moo fay tax ñooñu tey ñoo war a jël je pense leur responsabilité à à comment euh, comment faisant di jël di gëstu di am information yu baax yi parce que gis nga ku mel ni Aliou Sall tu l'as dit tout à l'heure c'est le maire sortant il a fait un bilan positif et très positif mm. malgré les euh, euh, nu mu ko mën a woowee. waaye lor na nu sunu littoral bi de. Euh, malgré les voilà li nu ma li ma doon bëgg a wax les couacs et cetera mais mais mais en tout cas au-delà de tout ça il a fait quelque chose boo xamante ne ni je pense que il mérite le bénéfice du doute et de ce fait ah même su fekkee ni sax la population il a décidé de de de le de le maanaam ñu jëlee ko fi donc pense que ni tamit dañ fay waroon teg nga xamante ne ni moom je pense que un peu crédible. Mais, parce que mm-hmm. Ahmed Aïdara ni mu commencé ses débuts euh, ça pas bon parce que liñ naan ci neex bu baxee dafay xeeñ depuis le début euh, Wayad Wan on a constaté que ni Ahmed Aïdara il est un peu quand même euh, violent et un peu sous ses en donc je pense que ni loolu tamit ce n'est pas loo xamante image bu baax bu muy lancer la en tant que maire et de même damay wax liste ki nga xam ne mooy Khadija may ko et donc euh, est-ce qu'on peut final on peut pas dire que ni waaye Yewwi Askan bi aussi ba dañoo sikkoon je ne comprends pas parce que à chaque fois ñoom loolu la ñuy incarner la violence et cetera et pourtant askan bi actuellement ñoom lañ jox bopp mais je pense que ni askan bi war nañoo remettre en question ou bien en cause li nga xamante ne mooy seen comportement ñooñu waa Yewwi Askan Wi mais nag boo xoolee malheureusement politique Sénégal noonu la man ça veut que malheureusement ñoom daf ñuy il nous dans la violence et c'est ce qu'on a malheureusement émeute yi fii ñu fekk. exact on a convoqué Khalifa Sall. Mhm. Karim Wade ainsi de suite. et ce qui se passe au niveau de Guédiawaye. Mhm. pour man genre politique boobu la ñu war a dépasser. Mhm. mais aussi euh, je me dis que Ahmed Aïdara même su nekkee tey moom moo nekk mairie de la ville de Guédiawaye. il risque de gérer cette mairie là difficilement xam lu tax. parce que boo xoolee yeewu askan bi dañoo minoritaire mhm. par rapport ak benn bokk yaakaar. plus les non alignés. Mhm. parce que man d' nu ma gisee en tout cas vote bi. Mhm. dafa mën ni les non du dañoo effectivement. rejoindre benn bokk yaakaar et du coup donc je pense que bu ñu demee si vote. il sera obligé que benn bokk yaakaar. malheureusement ñu jël euh, tous les adjoints. ah et est-ce que nekkul position boobu moo taxoon. frustration ruubee pour. Euh, c'est sûr c'est sûrement ça parce que. Euh, est-ce que Aliou Sall jënul aussi si suuf. mais c'est la bonne guerre. yeewi askan bi et que ñu ngi gis ni boot na si ginnaawam ñoo xamante ne ni tey jii am na yenn gox-goxaat yoo xamante ni désiré ñu leen woon pour reprendre leen comme maire su ma jëlee exemple lu si mel ni. mairie euh, Thiaroye muy Bara Gaye je pense ak Grand Yoff ce sont des un excellent maire en tout cas ce sont des gens ya nga xamante ne nii ils ne sont ils ne sont plus désirés ci fa nga xamante ne nii mais si parce que c'est le cas en fait loolu la loolu la et que je pense que ni euh, la population même elle s'est dupée elle-même parce que tout simplement ñi ñu doon voter ñoom dañoo jël Yewwi Askan Wi kese donc à leur grande surprise ils ont constaté que ni ñi ñu doon malheureusement ñi nga xamante ne dañ dañoo doonoon ñi nga xamante ne ni euh, voilà bëggoon nañ leen. mais xam nga yow kaw vote yooyu expliqué nañ ko parce que avant ñu dem élection wax li ni mel suñu jëlee exemple Lat Diop par exemple le président euh, Lat Diop DG LONASE tey jii am na ci ay suñu après suñuy investigation am na ñu bëri ñoo xamante ne nii nee nañ Lat Diop euh, su fekkoon ne nekkul woon ci rang bi nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar amaan na mu mairie loo xam ne xam na loolu nekk na loo xam ne tey loolu nekk na loo xam ne vraiment observateurs yu bëri loolu d'accord nañ ci loolu. Mm-hmm. mais aujourd'hui xam nga avant ñu dem élection avant ñu dem élection dafa am ñaari mbir ba ñett yu am. Mm-hmm. benn bokk na ci effectivement la criminalisation de l'homosexualité yoo xam ne député benn bokk yaakaar ñoo ko rejeté. Mm-hmm. loolu jàpp naa ne am na en tout cas lu tax askan wi ñu bëri vraiment dëddu noonu laa ko mën a waxee tourner le dos en tout cas. à ah, cette coalition mais. je suis d'accord avec vous au niveau de Benno Bokk Yaakaar mhm. y avait des candidats yoo xam ne nii effectivement amoon nañu profil mais da nga tudd quelqu'un comme Lat Diop mais Lat Diop su nekkee il n'a pas pu gagner ici effectivement à Golson en dehors mhm. par exemple euh, de cette loi-là rejetée par certains députés mhm. mais sa communication la Diop communication boobu communication baaxul ah. mais quelqu'un comme comme Lat bien vrai que am na benn posture bu baax. Mhm. mais il devrait changer sa communication. mais malgré loolu loolu aussi donc ça veut que gis nga. Mhm. xam nga violence verbale ça paye. exactement loolu ngay reprocher effectivement Ahmed Aïdara. mais pourtant population bi dafa am ñoo xam dañuy toog seen kër. Mhm. di observer. ñoom ñooy voter au fait. ñu ñëwaat si si mairie de la ville de de mais man aujourd'hui sans que comme nu ma waxee woon. Euh, Aliou Sall jaay nañu bilan bu rafet boo xam ne mm. on a tous mais est ce que bilan boobu tey problème bu am si filao yi est ce que yàqu ko. parce que mm. tamit am na trois 300 agents yoo xam ne ni. si mm-hmm. agent ils sont dans les dans les mairies. Mm-hmm. ñoom ñoo génn. Mm-hmm. dirigé par euh, ku ñuy wax Ndiémé Baar. di dénoncer que comme quoi terrain yooyu ñu jox conseil ñoom ñoo ko gën a yeyoo. parce que ñoom seen salaire permettre leen ñu jënd aujourd'hui ay terrain tey bu ñu déggee ne am na ay conseils yoo xam ne yow yaa ma gën a xam conseils mm. donc ce sont des gens yoo xam ne ñu si bëri en tout cas amul lu nu njëriñ askan wi. Mm-hmm. te su nekkee danoo jël suñu bande filao bi. Mm-hmm. vraiment saax saaxee ko est loolu aussi du yàq bilan wu Aliou Sall boo xam ne vraiment defoon na ko fii si Géejawaay. mais euh, maanaam terrain yi déjà man yow ko bëggoon ñu jox ko. mais terrain yi xam lan man lu ma jàpp. Mm-hmm. nañ fa def quai de Mm-hmm. nañ fa def marché poisson. Mm-hmm. nañ fa def ay centre de fonction euh, formation multifonctionnelle boo xam ne dafay bénéficier toute la population de de de de Guédiawaye. loolu laa jàppoon ñu def fa ay village artisanal parce que boo xoolee tey euh, ici dans dans le département de de Guédiawaye. Mm-hmm. amuñu yenn société yi. amuñu ay sous touristique et pour man bande filao bi waroon nañu ko def ay infrastructures yoo xam ne les gens viennent ailleurs. mu nekk def ko benn pôle. économique comme lu am Pikine Pikine tey ñoom am nañu ay syndicat am nañu ay ay comment dirais-je marché poisson mhm. am nañu ay gare routière mhm. mais ñun fii on a absolument rien du tout donc man jàppoon naa ne loolu su nekkoon dañ ko defoon vraiment mu nekk milieu attractif économique mhm. nga xam ne dafay bénéficier wu géejuwaay bi yëpp bu boobaa développement dina am mais su nekkee da nga ko jël jox ko tierce personne quand même te loo xam ne amul benn mérite loolu pour en tout cas bokk na su lu ma jàpp ne. man je dirais vraiment dina dina dina yàq vraiment bilan. bilan mais man je dirais pas que ni euh, daf ko war a jël euh, tasaare ko jox ko ku ko neex euh, ku ko yelloo ku ko yelloowul mais aussi je vais pas rejoindre ton idée parce que man je pense que ni en en ce qui concerne décentralisation dañ ko war a appuyer actuellement fii ci Sénégal parce que dafa en fait Dakar dafa xat Dakar dafa fees dafa bëri je pense que ni on a tout concentré ici à Dakar et waxuma ba tey aussi damay appuyer fait qu'on doit prendre ces terrains-là et les donner à qui veut, mhm. mais non on peut on peut on peut joxe pour d' autres moyens ou même pour pour euh, pour créer peut-être comme ni nga ko waxee mais je pense que aussi euh, Yadouane il faut il va falloir mais pas di ci def ay euh, en ci créer waat ay entreprise fii à Dakar et man parce que damay soutenir tout le temps li nga xamante ne nii muy ñu jéem a euh, déconcentrer Dakar en fait parce que Dakar dafa xat dafa fees. mais loolu tamit je pense que ni beneen débat la. mais dans ce cas Yadouane pas sortir de compte. dans ce cas nañ fi bàyyi filaawo yi. Mm. ñu dem dëkk bu nuy wax Sandiara par exemple ñu def ay logements sociaux. donc je pense que damay ñëwaat ci sujet bi mooy que ni euh, peut-être li ñuy taxé Aliou Sall noonu waru mën a tax loo xamante ne dañ ko war a mën a euh, yàqal euh, continuité parce que il avait. il a est woon boppam. il a déjà un bilan très positif. Mhm. mais aussi il a. un futur il a il a en tout cas des inspirations ici yoo xamante ne nii dafa positif pour mm. euh, pour l'avenir de Guédiawaye et donc mënoon mën naa ni nañ mënoon nañ ko bàyyi mu yeggali naqam parce que Sénégal tamit dañu tàmm en fait euh, à chaque fois boo nekkee. ci peut être Sénégal oui sénégalais yi. mos nga gis ku dem ñëwaat mos nga gis maire bu dem ñëwaat. sénégalais yi malheureusement. man xam nga bañu ma ku fi pousse mais ku fi pousse nañ fi teg ko meilleur. je pense qu'effectivement sincèrement. Euh, Ahmed Aïdara mhm. euh, war na mun a liggéey ah, war na mun a liggéey quand même mhm. euh, su nekkee Aliou Sall def na un pas mhm. mu defaat un autre pas de plus mais loolu pour mu am nag il faut que mu yaatu mu ubbeeku mu modeste mais mu associé ñëpp parce que je pense que am na foo xam ne nii vraiment bu fu ñu fa tollee gars yi dañoo war a teg armée yi pour l'intérêt vraiment de de de Guédiawaye mais su nekkee dafa bugg def ay tiraillement fii di jaay ne vraiment c'est un opposant radical bu boobaa aussi il ne pourra pas faire une grande chose parce que mhm. déjà boo xoolee mhm. euh, j'en suis sûr et certain que quand même euh, les non alignés entre guillemets mhm. ils vont rejoindre euh, malheureusement la coalition Benno Bokk Yaakaar et à partir de ce moment-là ils seront majoritaires exact donc lépp lu mu bëgg jàllale ces gens-là pourront bloquer effectivement ce vote-là. donc moom vraiment na utiliser intelligence am. Mhm. mu yaatu. Mhm. te ne yàlla def na ko maire tamit mu gëm moom mu gëm yàlla ne moo ngi naan Aliou Sall mu gëm yàlla mais moom mhm. na gëm yàlla na xam ne mooy maire. mu wàcceel boppam. vraiment tàllal loxoom woo ñëpp. bu ko defee ñu ànd xàccandoo dóorandoo. bu ko defee effectivement géejewaay jëm ci kanam. comme ni que je pense qu'il est euh, comme ni muy réagir rek à chaque fois na Aliou Sall dégagé et tout ces vidéos euh, mënoon na si ñàkk et je pense que élégance boobu war na ko mën a incarner tey jii mi nga xamante ne nii moo léegi moom doon na maire loolu la xaar si moom et aussi di espérer que ni dina mën a gérer géejewaay et que fi ko Aliou Sall yóbbu dina ko yóbbu euh, fu ko xamante moo ko raw espérons ça mais en tout cas li nga xamante ne ni comme niñ ko waxee rek lii xeeñ fu mu toll nii neexuma fu mu toll nii et je pense que ni ñëpp teg nañ ci bët waa Guédiawaye surtout mm. mais j'espère que ni daal euh, dina am chance pour mën a gérer mais <laughs> en tout cas on verra. on lui porte chance. <laughs> merci waa internaute yëpp. di mm. jox euh, dig daje ba beneen yoon beneen chronique. Mm-hmm. ak effectivement Yardawan ak Maguette. tey giri dafa daw mais bon. Mm-hmm. Euh, on attend on pense que en tout cas prochaine fois. dina ñëw fii teew jërë ngeen jëf. jër jërë ngeen jëf waa Pexxe TV eh, ñu leen joxaat comme ni ñu ko waxee rek dig daje ba beneen yoon di nuyu yéen ñëpp di nuyu mbokk internetu eh, diaspora bi e waa partout au Sénégal en tout cas je vous remercie merci.